yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la santen ci yàlla bu baax jëgn ci kenn mag secret baa secret baa sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu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 sëriñ bi doon wax ne sunu boroom nangul na ma sama ñaan ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam waaye li ko jaay tey jii jënd na ko waaye bi mu ko jëndee ba noppi daf maa saxalal ay tiraangaam moom borom bi subhanahu wa taala kon loolu moom lay continuer ak ñun ci nu mu ko commencé woon ak ñun moo tax mu continuer ko ne bi awbati wa bi xada xawaiji bi kun wa tayib lil xada istarihi jënd na ko ci man bi kun ci barkeb kun fayakun bi aw bati ànd koog samak dellu ñibbi senegal wa bi wa i dañoo dagg xasa dañoo dagg xam sa gi ngir wëy wi ànd koog pajuk xawaa i ci samay xaajo wa tey te yàlla na nga teelal lii ñeel ma alxadaas faatu gi mooy faatu gi ma war fa alxadaa day tekki faatu fa wakasahu Muusa fa xaddaa alayhi gis nga ci alquran baatab xaddaa day tekki faatu day tekki dogal day tekki yeneen yeneen tekki yu bëri bari sax yu dul lool rek day tekki lu bari bëri mu ne yàlla bim bim bim jëndee li nga xamee ne jaay naa ko ko tey jënd na ko ba noppi nee bi ko yàlla jëndee nag ba jox ma njëg ma jox ko marchandise ma nee ci laa xam ne nag sama aaju yëpp paju na léegi nag li ma war a defee mooy ñibbi senegal ndax yàlla da ko jënd ci barke kun fayakun lépp mu daal di ko jënd jox ma ko ñaan yàlla nag ci wa tayib lil xadaa mu teeyal li nga xam ne mooy ak faatoom moo tax mu ne istari yi jënd na ko bi kun ci barkeb kun fayakun bi aw bati ànd koog sama ñibbi Sénégal wa bi xaddaa xawaa iji ànd ko pajuk samay aajo kon la ko yàlla jox jëg gi njëg la goo xam ne mat na lépp lu mu bëgg a def moom sëñ Tuubaa mën na koo def ndax pajuk aajum la mu ne wa yàlla na nga teelal lii ñeen ma alxada faatu yi wajix yàlla nga jëmale ilay ci man al yow ma tey jii yaa mawlaa yaa yow mii sama kilifa karaamatan say tiraanga yoo xam ne te doomu dana sax dakk li ñeel ma wal aaya ak yi yàlla na nga jëmale ci man yow mii sama kilifa yaay sama kilifa na nga jëmale ci man tiraanga yoo xam ne day sax ci man bu faw tiraanga jigéen mooy tiraanga joo xam ne buñ nekkee ci yow day sax ci yow am na xam ne bu ñu amee tiraanga tey suba duñ ko am bu ñu at mii at muy ñëw duñ ko am kon li gën ci tiraanga yi mooy tiraanga joo xam bu ñëwee day sax ak yow waaye ak ay alxuraan yi suux na nga màngal li ñeel ma maa xam ne akoonu danaa nekk bii ca loolee nga màngal ma jox ma sarmada ba faw abda ilahiya di sa jaam yow sama borom xadima ahmada di liggéeykatub yonent bi nga xam ne mooy ahmad yàlla na nga ma màngal jox ma loo xam ne loolee nga màngal ma te mu ñëw ci man nga jox ma ko ci lay nekkee abdul ilahiya mooy jaamab yàlla mi nga xam ne amul kenn ku dox ci digganteem ak yàlla al ilahiyatu mooy fay fi cosaanoo gis nga raama rasulullahi min ilahi kon yónnente bi muy sàkku yi sëñ ngir mu wàcc di ko liggéeyal ilaahiyatu foofu la ko doon sàkku jee mooy fi yëf yëpp ko mooy jaar ak majruur min ilaahi nga kon foofu la ko yónnente bi doon sàkkoo mu ne danaa doon nag abdul ilaahiya waaye xadimu ahmadiya xadimu ahmadiya danaa ko doon waaye danaa doon abdul ilaahiya loolu moom ay domaine la yoo xam ne tubaarkalla uktu bi na nga bindal la foo ñeel yónnente bi asalaata julli wasalaama ak sëlmal bi ali ànd koog ñoñ wala tax nii te yàlla nag ma fegal asalaama lépp luy xeeti tooñaange yàlla na nga bindal sa salaatu wa salaam ca yónent ba sallallahu alayhi wa sallam ko ca moom ba faw moo ko waa këram ñi waaye lépp luy tooñ man Ahmadou Bamba yàlla na ma ko fegal bu bu ma ko def kenn bu ma ko kenn def xif na nga dindi sànni na nga muri na nga dàq du jaaxal bi lëndamuk sama xol yaa xadir yow yàlla muy aji am kàttan ji yow yaa man yow mi nga xam ne lëxoo ñeel la at tadbiiru xam dëgg-dëgg mbir yi wa taqdiru ak am ak am ca kattan maanaam xam noo koy fajee yàlla mboolem kukkuk lëndëm gu nekk sama xol na nga ko dindi yow mi nga xam ne taxoo da tëlexoo dara daf naa ne gi ne kasawta du jaaxal bi ba kulli amaytuhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo dindi lëndëm gi nekk ci xolam ba noppi xaar léppam waaye lépp gis nga ba tey rek ci yàlla la koy delloo bi hif si la ma mastaka mustakin askar yonent bi de bu defee loolu ci kaaraangeeg yàlla mi nga xamee ne képp ku mos a jàmbat jëmee ci moom fajal ko ay njàmbatam moo tax ma ne xib na nga dàq du jaaxal bi lan la mukk sama xol yaa xadiru yow yàlla muy ajaam kàttan ji yaa man yow yàlla mi nga xam ne loxoo ñeel la tadbiru xam dëgg-dëgg mbir yi tadbir mooy koo xam ne moom du du làmbatu moom dafa xam mbir yëpp mooy tadbir lu mu dogal da koo xam lu mu dogal itam xam na ko moom moom lépp la xam waa taxdiru ak xam kàttan ci mbir yëpp moom dafa xam mbir ba noppi te du ca tële ba noppi te am kàttan ci lépp mën a fajal boppam kooku mooy tadbir ak taqdir mën na xewee nga alee ci bi salaamatil jasad ci muccug yaram wal xal bi ak xol min kulli asan ci lépp luy lor wa min xasan ak kañaan yàlla fex nga ba sama yaram mucc na ci gépp tawat sama yaram du tawat mukk am naa yaram woo xam ne wu féex woo xam ci jàmm rek lay dund sama xol mucc na ci bépp lor moo xam rëy wala ndistal wala aaw wala kañaan feebar yu gën a bon di dal ab xol te bu ko dalee rek mooy xol boobu du sell nee na sama borom fexe na ba ma di dee ko ci ba sedu ci ak li ñuy wax kañaan mu yàlla defal nit ki dara rek nga jàpp ko sa xol kañaane ko ko benn nga faat ko wala nga ñàkk koo faat wala yéenee ko ko loolu yëpp ci xeeti kañaan la min sëri xaasidi saasira kon wal xalbi min kulli asad wa min loolu yëpp yàlla dindi na ko kon daal yàlla defar na jëmmam ba du tawat waaye defar na xolam ba du tawat loolu rek la bëgg wax waaw ndax nit ki moom jëmm la am ab xol a nit ki jëmmam mën naa wér sa waaye xol bi tawat waaye xol moom bu tawatee léppay tawat yàlla ñu ci musal ijxal defal xayaati sama dund gépp jannatan mu neex ba mel ni aljana lil janna ba keroog may tabbi aljana nii te yàlla nag ma fegal al asa lépp luy lor sarmadan faw wal fitna ak fitna yàlla damaa bëgg sama dund gi neex ba mel ni aljana joo xam ne jàmb da nekk di xéewu dundu sëñ Tuubaa daa mel ni ci aljana la nekkoon loolu yàlla sama dund mu mel ni ci neexaay aljana ba keroog may tabbi aljana xam ne sama dund day mel ni aljana dugguma aljana na am waaye dund gi na mel ni aljana xam nga loolu la waaye mu ne ko nanga ma fegal lépp luy lor ak fitna ba am na dund yoo xam ne lor rek ci ngay dëkk ak fitna moo tax mu ñaan yàlla na ko boo defee sama dund mel ni aljana ci neexaay fegalal ma lépp luy xeeti lor ak fitna dégg nga li ci am solo wa sarma dana rek ak lor la yàlla ñu ci yàlla mun na xéewee nga alee ci man bi talaasu bil busar ci may taqoo mbégte waskur te yàlla na nga sant firaaqiya teqalikoog gi ma teqalikoog salaasata asara xasar fukki ak ñett ya yàlla xéewee nga ma fu ma toll man sëñ Tuubaa di taxoog mbégte du ma tàggoog mbég mukk ma toll ci mbégte rek ndax noonu pexe muñ nos ba jàpp ne baax na rek sa borom dajji ko sànni kon kooku fu mu toll day sant yàlla ci mbégte rek lay dëkk mu ne maa ngi lay sant ci tàqale gi nga ma tàqale fukki ak ñett yi mooy ñama la doon wax rek mooy ca lambar lañ ko defee ba tey pour ba itam ci lambar na lambar moom bokk na ci barab yi gën a métti parce que sawara sañ ko dugaloon sax ci lambar na la ndax ñi ko defoon lii rek ñoo ko doon ñoo ko dellu def defaat lee ko defoon lii rek moo ko defaat lee ki fexe bañ tag ko ci garab di ko fetal moo fexe bañ dugal ko ci puur rek moom lay sant rek ba tey loolu yëpp di dellu ci rek kul naa yaanaaru koo nii gi mu ko tënkee bardan wa na ala ibrahima wane ne na noonu safara suñu mor sa taal jëmalu ci kaw sëñ Tuubaa rek suñu borom fay na ko kullama awqadoo naaran lil harbi atfa'aha llaahu wa yas'awna fil ardi fasaadan rek lañ ci teg kon loolu kéemaan la mu ne waskur maa ngi lay sant firaaxee ci tàqale gi ma tàqaleeg salasata asar fukk ak ñett ya ñàkk sa bakkan kon loolu kéemaan la jut na tabe lii ñeel ma bi hismatan ci ak mucc minal hisaab ci lépp lu hisaab wabin xilaabil xom bi ak wëlbatiku dund ga li xisaabi ci ak rek la yàlla nag ma may ma mujj ci lépp loo xam ne xisaab la muy xisaab mooy ñiy seet sa jëf yi di ko di ko vérifié nga yàlla moom bu la vérifié rek dana gis sikk yi nekk ci yow loolu moom ku ne xam na ko loo baax baax bu la yàlla vérifié gis sikk yi nekk ci yow ndax xam nga ne xam na ne ci sikk ci nga dëkk ci heure bu di tuub dellu ci yow moo tax mu ne yàlla defal sama dund yëpp bu mucc ci lépp lu xisaab waaye faral wëlbati dund gi sax muy ak xisaab nga xam ne dund gi dañ ko xisaab fii ba noppi wala yow xam kenn ku xisaab loolay wabin xilaa bil omri li ixtisaabi yomal xaam kon kenn du ko xisaab ndax wabin xilaa bil omri li ixtisaabi dund gi dañ ko wëlbati ci àdduna lañ ko far xisaabee léegi yomal xaam kenn du ko xisaab ndax lii jub bi xismatin xismatin bi na la xisaabi kon jeex na ijaal defal kitaabaka sa téere bi ku noosi muy sama trésor muy sama banque bi may retiré xaalis yaa alim yow yàlla muy xamaa kon bi te xam lépp waxab na nga may lee ñal maa loo xam ne faaxa kawe na sa ni sama jorto bi na olom ci fànn xam bu mën a doon rek moo xam xam-xamu adduna wala xam-xam bu dul xam-xamu adduna xolloom la da koo nakiiral yàlla defal sa téere bi di alquran muy sama trésor muy sama ndam muy sama coffre-fort muy sama banque xam ne bu gars yi di dem ci banque di ran di retirer xaalis man sama banque na doon alquran li may am lépp nay bay ko ci alquran yow mi xam lépp te dara wumput la def ko waaye may ma sax ci xeeti xam-xam loo xam ne day fiiti kaw sama njort sëñ Tuubaa moom xeeti xam-xam ko joxe xam i bank yi ngay gis xam-xami yëpp métier yëpp da koo xamoon loolu yàlla defaloon na ko asaluka ñaan naa la al yawma tey bi hurmatil xalil ci xormaay sa xarit ba sëlli yàlla nga julli ali ci yonente bi salaam yàlla muy aji màgg ji ko yàlla maa ngi lay ñaan tey jii ci xormaay sa xarit bii di ibrahima alayhi salaam ndax aaya ji moom la ko tënke moo tax mu tudd ko fi moo tax mu ne ko yàlla na nga julli ak sëlmal yow yàlla muy aji màgg ji ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ci Ibrahima moomee nga xam ne mooy sa xarit bi kon asal ko ñaanal naa yawma taji bi hurmatil xalil ci xormaay sa xarit bi yàlla nga julli ali ali moom sa xarit boobu bi salaamin ànd ko sëlmal ga yaa jëlee la yàlla bi aji màkk bi hurmatil xalil yi maa ngi lay ñaan ci xormaay sa xarit bi muy Ibrahima wal xalil ak sa xarit bi muy yonente bi yaa rabbi yow sama borom kun yàlla na nga nekk musal yaay di aji julli xalima wulis leen ñoom ñaar gis nga bim ne bi hurmatil xalili salli xalil bi salaamin Ibrahima lay ngelbatu waaye day bañ rek nga defee ne keneen lay wax yonent bi lay wax moo tax mu far indiwaat leen ñoom ñaar ñëpp far julliwaat ci ñoom mu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan ci xormaay sa xarit bi ak sa beneen xarit bi di Ibrahima ak yonent bi salaam ñoom ñaar ñëpp xaritub yàlla foo toll del julli ci ñoom ñaar bu ne sa salaatu wasalaam dee ko sotti seen kaw. rabbi yow sama borom yow mi aji yarbiya yow mi aji tarbiya yàlla na nga julli anhuma wul alayhima wulis leen ñoom ñaar maxan mboolem seen suma ma àlla rusuli topp mboolem yonente wal amlaaki ak malaayka yi arba bil ola ñey borom ak kawe yalla gannaaw boo jullee ci ñoom ñaar ñoom ñëpp mboolem yonente yi na nga julli ci ñoom am malaayka yi yëpp na nga julli ci ñoom ña nga xam ne ñu borom ak kawe lañ ndax ñu kawe lañ malaayka ñu kawe lañ ndax loolu ci la leen yàlla bind fu ñu toll ci kawe lañ nekk waaye nit nag dana baax ba gën malaaka féete ko kaw waaye nit dana bon ba gën a yées bàyyi ma loolu moom yàlla ko def kon rabbi yow yàlla muy na nga julli xalimaa walis leen ñoom ñaar muy ibrahima ak yonent bi maxan mboole seen su maa la rasuli topp yonent yi war am laaki ak malayka yi arbaabil olaa ñuy borom kawe afil na nga bëbbal salaataka sa julli ma taslimi ko ànd ko sëlmal wa jub te yàlla na nga tabe yee bi an fay gan gën kaa jëriñ ci xeeti xam-xam yi loolu moom bu àndiko maarifa mooy xam-xam yi am njëriñ ji yàlla na nga bëbbal bëbbal mooy tuur maanaam wàcce sa salaatu wasalaam wa sallam waaye nag ma tabe gën kaa jëriñ ci xeet xam-xam xam-xam yi ci gën a am njëriñ na mu ko xam na nga may lii ñano bi kon ci barke kun fay kun maa loo xam ne laay saalu du dañ mukk xajabaa di yéem li saali na ñeel way baax ñëpp alkaamili na ñe da a mat ak nujabaa i dañoo xa xamsa xam ñe da ay tànneef yàlla nag ma may ci barke kun fay kun loo xam ne du dañ mukk di yéem gaa yu baax yi gaa yu baax yi lu ñuy baax baax lu ñuy bëri xéewal yàlla loo leen defal ay jagle jagle ci xeeti may saa suñ gisee lu bokk samay may de da leen di yéem dañu yéemu ci loolee wa jaxtali maa laa yisaalu ajiba fi abadali saali nujiba kon yàlla nag ma may ci barkeb kun faykoon loo xam ne du dañ mukk di yéem ñu baax ñi nga xam ne ñu mat lañ gis la ñu baax ñu mat sëkk ñi ba noppi nag te doon ay tànneef kon asaalihina rek mën nañ nekk asaalihin waaye alkaamilina ad nujibaa loolu moom beneen daraja la yésir na nga yombal lii ñam alasira lépp lu jafe wala tarul yàlla na nga tàggatal lii ñel ma jumlatama mboolem la nga xam ne saxoo ba jafe na yaatal fat yow yàlla muy borom gënil yàlla lépp luñ naan lu jafe la nang ma ko yombal ba ma jot ci man Ahmadul Xadim maa ngi koy sàkku ci yow de mboolem loo xam ne dafa të te jafe te lànk yàlla yombalal ma ko waaye loo xam ne da dafa def dafa def lu ñuy wax jafe ba yegg ci nar a të tàggatal ma ko ma jot ci yasir lil asira mooy lu jafe rek waaye nag saxo ba mooy lu lu të loo xam moom dafa jafe ba yegg ci ak të moo tax mu ne ko nag mo yombal lépp lu jafe waaye nag ma tàggatal mboolem la nga xamee ne moom it dafa jafe yow yàlla mi nga xam ne yaay borom gënil musalliyan mbir moom ngay aji julli ala nabi ci yonente bi muhammadin turo mooy muhammad an nii jëlee ci man musalliman mbir moom ngay aji salmal xale ci moom ba tey jëlee ci man sama dii ëy yaa sama dii dañoo xasaf yaaga munaa daaga yow mi nga xamee ne yaay sama kilifa gi nga xam ne yow rek laa jibalee ajo te jublu te jubluuma ajo jëm ci keneen ku dul yow te yow doo jublu ajo ci man yàlla na ngay julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne yaa ko di jox xam-xam nu waaye nag man lottu naa ci na mel ni maa ko def waaye nag yaa ciy julli waaye na nga sëlmal mi nga xam ne yaay sama kilifa gi moo tax ma ne musaleen mbir moom ngay aji julli ala nabi ci yonente bi muhammadin turu mooy muhammad xan nii jëlee ci man musaliman mbir moom ngay aji sëlmal ali ci moom ba tey xan nii jëlee ci man sama di yow yàlla mi nga xam ne yaay sama kilifa gi yow mi nga xam ne yow rek laa jëmalee ajo jubluwuma ajo kurut yow yow moomee maa ngi dagaan mu mel ni maa ko def chaque jour rek na ngay julli ci yonente bi sallallahu alayhi ci ndax lottu naa ci mu mel ni maa ko def rek ci waxtu wu na koy gën di sotti di ci sotti di ci sotti di sotti salaatu wasalaam goo xam ne maanaam du am fu muy yem daal ci gàttal kon xasiida googu noppi na xul naa yaa naaru kuuni bardan wasalaaman ala ibrahima baytay rek aaya ji mu cee toxtal daanaka ñoom ñaar sëriwun daanaka ñoo bokk benn saar wuñ nekk ñoo bokk itam benn hisib buñ nekk benn su buñ nekk benn rubon buñ nekk benn suman buñ nekk te mooy wa araadoo bihi kaydan fa jaalnaahum al axsarin wa najaynahu wa luutan ila al ardi allati baarakna fiha lil alamin wa wahabna lahu isaaqa wa yaquba naafilatan wa kullan jaalna saalihin kon bunt bii ñu jeexal te mooy xul naa yanaaru koon yi mu ngi tolloog li mu jàll muy laaj li mu jàll te mooy laaj fanweer ñett moom la to la tolloog mooy yi nga xam ne jaayantoon ak borom xaraamal ci boppam moom la li mu béy di tolloog ko ci boppam ne du ko te mooy li nga xam ne moom lañ ko yor ci loxo tubaab yi léegi nag xam nga suñu borom bi ne yaa naaru koo ni bardan wa salaaman safara si seddal sedd bu ànd ak jàmm moo tax Ibrahima am firte ña ko ko defoon nag lañ bëggoon mooy seen pexe mi jàll yàlla ne ma seen pexe ma kon sëñ tubaab moom biñ ko defee loole yàlla dafa wax safara si na ko seddal sedd ànd ak nag ña ko doon pexal ca làmbana duul ko ci biir puur ba ñooñu nag seen pexe dara lañ bëggoon mooy antuut man nekk yàlla da ko caa musal nam musaloon Ibrahima ca pexem Namros ibnu Kanaan moo it yàlla da koo musalee loolu ci noonam ya moo tax aaya ji da koy delloo firima ci Ibrahima waaye delloowaat ko ci sëñ Tuubaa wa araadoon namu nañ bii ci Ibrahima kay daan pexe wa araadoon namu nañ bii ci sëñ tubaa kay daan pexe noonu rek la ñi pexel Ibrahima mooy gaay Namros ñi doon pexe sëriñ bi mooy gaa yi nga xamee ne mooy gaa yi lakkale di ak ñi caaju ak merle ki nekkoon ndar ak ki nekkoon Louga ak i ay gaayam gaa yooyu rek ñoo doon pexal ba tey rek man man nga misaal nag kenn la rek parce que Iblis moomee ma yebaloon gaa yi gaa yooyu ñi bëgg a toroxal yoon Cheikh Ibrahima Iblis moomee moo dell yebalaat gaa yi bëgg a toroxal sëñ moo tax ma ne wa araadoo namm nañ bi ci sañ tubaa kay dan ak pexe fa jaal naahu moo te moom yàlla mu mujjal seen pexe moom laq si neen mbir mu ñëwee perte. ndax jàppoon nañu Ibrahima bu ñu ko sànnee ci biir safara xam ku ne xam ne ne day lakk day dee ñoom foofu lañ tolloon waaye gis nga doog gi maam rek moo tax suñu borom musul ko ca ñoom seen pexema ma seen pexe ma daal di nàkk mooy lañ bëgg ñu amut war na jee musal nañ ko moom Ibrahima woo lóotan ak lóot ardi ci suuf allati mooy suuf si nga xam ne baarak naa barkeel nañ fii ca moom lil alamin ni ñeel mbindeef yi Ibrahima musal nañ ko ndax ña ko doon weddi yëpp alak nañ ko Luut itam moom nitam nitam ñi ko gëm ñi nga xamee ne dañ ko widdoon di def góor jigéen ñu ñu yàlla alak nañ leen waaye nag Ibrahima bi ñuy alak nitam ña alaguñ ko ña ko doon gundu di ko peexal alaguñ ko Luut bi ñuy al alak nitam ña moom it alaguñ ay mbokk lañ ku ne xam na ko ñu bëggante woon lañ ndax ñu baax lañ woon dañ daan nemmeeku wante lu bari bari ndax ay mbokk lañ ñu jegewante lañ moo tax mu ne musal nañ ko moom Ibrahima ba bañuy alak noonam ya alaguñ ko loot musal nañ ko ba ba ñuy alak noonam yi doon def góor jigéen alakuñ ko te ñoom ñëpp ñoo bokkoon benn suuf suñ nekk moo tax wa najinaa wa lootan ilal ardi allati na fi alil alamin woo xam naa may nañ loxoo ñeel ibrahima isaaq doom ju tudd isaaq wa yanqooba ak yanqooba naafilata mu doon ak ndollal wa kullan te képp ci ñiy jaxal naa def lañ def nañ leen ñun yàlla saali na ñu doon ñu baax ibrahima dafa yéex a am doom lool moo jur ismail moo jur ismaila jur isaaq Isaaq nag moo jur moo jur Yanqooba Yanqoob moo jur yonent yàlla Yuusufa moo tax ñu leen di wax ibnul karim ibnul karim ibnul karim moom ñëpp ñu tedd la ñu tedd la Yuusufa ku tedd la ab yonent la ki ko jur mooy Yanqooba ab yonent la Yanqoob ku jur mooy Isaaq kon ibnul karim ibnul karim ñoom ñëpp ñu baax lañ kon léegi na nag matnul xasida gi moo nekk nii wajaxtu wàcciya ilal xafiisi bi sukri bil maxnaa wa bil malfuusi askuruhu mil asama wal ardi wal arsi wal kursi yu nixmal mardi wa jaxtu jëmale naa wàccee sama jëmm ilal xafi si jëmee ko ci yàlla muy aji wëttu ji bi sukri andi di ko cant bil max naa ci lu nëbbu wa bil malfoosi ak ci lu feeñ nee na jël naa sama jëmm lépp jëmee ko ci yàlla muy xafiis mooy ki nga xam ne ku mu ku ne kenn du la mën a lor buñ la tàbbuloon ci safara sax buñ la doon pexel wallahi kenn du la mën a lor gis nga nim mu déggee kon ma ngay delloo max naa wa araado bi kay ñoom dañ doon pexe waaye xamuñ na yàlla ku mu wëddu ku ne mën kenn du ko mën a lor kon jël naa sama jëmm jëmale ko ci yàlla muy aji wëttu ji di ko sant ci lu nëbb ak ci lu feeñ ci max naa mooy ci lu nëbb malfos nag mooy baat ya cant goo xam ne daal cantu nekk ak cantu jëmm ak cantu làmmiñ ci waxtu ne maa ngi koy sant saa borom subhanahu wa taala sant naa ko mil asama cant goo xam ne dana fees ni asamaani juróom-ñaar wala ardi ak dana fees ni suufi juróom-ñaar wal xar si ak dana fees ni aras wal kursi yu dana fees ni kursi yu neex ma est-ce que almardi ka nga xam ne mooy ko ñu gërëm ka nee ne yàlla moom nga xam ne mooy ku ñuy gërëm ka danaa ko sant fu may toll sant gi nag boo ko doon misaal am ndab loo koy duy danga naan asamaan du fa xaj suuf du fa xaj xaras du fa xaj kursi yu du fa xaj lépp dafay fees dell ak sant ko am na doole moo tax mu teg ci tagg yàlla ne est-ce neex ma amul morom ma almardi yàlla mi nga xam ne mooy ku ñuy gërëm ka radiitu gërëm loo naa an hu walis ko xaddadal xalaayiqi gërëm gu toll ni li mu mbindeef yi mu faarixan mbir moom muy aj teqale ak man sëñtuwaa Tuubaa moom yàlla maa lépp loo xam ne lam yëkku nekkul bi laa yëqi di aji yell ci man ma yeyoo ko gërëm naa yàlla bég naa ci moom félicité naa ko kontaan naa ci moom ñi ne ko nu mu toll mu ne gu toll ni li mu mbindeef yëpp li yàlla sàkk ci ay mbindeef ni mu toll noonu laa gërëmee yàlla waaye moom yàlla moo dindi moo teqali ak man lépp lu yellu ci man rek fexe na ba dagaasu ko du dajeeg man mukk askuruhoo sant naa ko bil xal bi ci xol ba a zukura saakirina cant woy cant ña mur murtajian mbir moom may aji yaakaar min hu ca moom yàlla sawaaba saabir yi yoolub woy muñ yi yoolub woy mu yi yàlla maa ngi koy sant ci sama xol yàlla ko digle wama bikum min nixmatin fa min allah ñi ne ko num toll cant gi xam nga gërëm gi rek nee na ko xadadal xalaayiq waaye cant gi nu muy toll mu ne sukkura sakrina day tollu cant gi may cant yàlla man kenn dong buñ xooloon cant gi jaam ñëpp sant seen borom noonu lay toll kon dana kawe waaye maa ngi yaakaar ci moom yàlla ñi nga xamee ne asaabiriina lañ ak wa saabiraat nga xam ne dañoo dappatoo saxoo ci muñ maa ngi yaakaar ci sa borom subhanahu wa taala seeni yool ma jot ko yàlla nee na wasa nag si saakirina danañu fay woy sant ña <laughs> kon ba tey day dugg askur fo bi xal bi sukkura saakirina am na ko waaye tam yàlla nee ñi nga ànd ak muñkat yi te ñu fay ba tey muñkat yi danañ leen yool bañ jàpp ne sax maanaam li yellooñ ko inama yuufa saabiruna ajruhum bi xëri sax yàlla nee na muñkat yi danaa leen fay te du ma leen sab dañuy jàpp ne sax maanaam li yellooñ ko la leen di jox gis nga inama yuufa kon yàlla baata wafa muy kóllëre matal kóllëre moom la jëfandikoo muñkat yi ndax muñ lu métti la jaamu yàlla biir yëpp jaamu yàlla baatin yëpp li ci gën a jafe mooy muñ jaamu yàlla saaxir yëpp li ci gën a jafe mooy julli daxutoo ñaan naa ko waraadata tàggata na lii ñeel ma xeddaaya samay noonu waxat jaada te tabe na lii ñeel ma bil hadaaya ci ay hëddiye ay may biim ca noon ya yàlla ñaan naa ko yàlla sama borom subhaanahu wa tàggatal na ma sama noon yëpp kon nag yàlla maa ngi koy woo di ko sant ci waxtu ne ndax bi ma nekkee ca noon ya ci la ma may hëddiya xéewal yu bari bari ci seen biir moo tax mu ne woo naa ko ndax moom yàlla kat waraada tàggatal na lii ñeel ma xeddaaya samay noon waxat te tabe na lii ñeel ma biim ca noon ya bil xaddaaya ay hëdiyam yàlla dafa jël ay kado ba ma nekke ci noon mu di ma ko jox waaye bu duppi tàggatal ma leen ñoom ñëpp kenn mënu ma cee lor wasiqtu dëgërlu naa billahi ci kàttanu yàlla dëgërlu naa ci kàttanu sama borom subhaanahu wa taala ci waxtu wu ne du ma dellu gannaaw mukk alxakim moom muy aji xereñ ji alwaahidi moom muy kenn man mooy ki nga xam ne jaada tabe na lii ñeel ma bi nasri ci ndimba ci dimbal ku kulli jaahili gépp aji weddi nee na dëgërlu naa ci kàttanug yàlla moom miy aji xereñ ji borom xikama mbir mu ne fu mu teg rek noonu la fu mu teg mbir rek noonu rek la noonu rek noonu rek la war a doon mooy ki nga xamee ne mooy kenn ku wét te soxlu ku ko wéttali mooy ki nga xam ne mboolem ku weddi yàlla yàlla moo la may nga dima dimbale léegi nag nga xam ne ñu ko weddoon ñëpp dañoo mujj di ko dimbali loolu moo ko defal moo tax man yàlla mooy ki nga xam ne jaada tabee na li ñel ma bi nasri ci dimbal ak kulli jaahidin gépp aji weddi nga xam ne léegi dafa mujj ñëw di ma dimbal loolu yàlla ma ko defal allahu yàlla mu ahkamu mooy kii gën a xarañ min kulli hakimin bépp aji xarañ subhaanahu tudd na mag sellam nix ma amul morom alxakimu mooy aji xarañ ji alxakamu mooy aji xatt ji day wan rek yàlla nim nim defaree ay mbiram moom Sëñ Tuubaa waaye nim xattee digganteem ak noon ba wan leen gannaaw suñu borom tàggatal ko noon yi noon yi fu mu toll commencé nag di bëgg sëñ Tuubaa di ko liggéeyal moo tax muy tagg yàlla ci loolu moo tax mu ne maa yéem yàlla mi ne képp ku xereñ moo la gën a xereñ fexe na ba sama digganteeg noon man kenn la noon yi ay mbooloo lañ waaye fexe na ba xereñ teem la dugal sama digganteeg ñoom ba noxal ma la est ce que tudd na ma sell ak moom yàlla moom est ce que amul morom moom muy aji xereñ ji nga xam ne mbir mbir mu ne fa ko teg rek noonu la fexe na ba sama digganteeg noon yi mu àtte ko kenn ku nekk bari barixtu set naa min li ci sama pexam bopp wa min quwwati ak sama kàttanu bopp allahu yàlla nag sa dëgg-dëgg rëbb yi mooy sama borom waaye wane bi yonent bi xudwati yaa mooy sama royteef léegi sëñ Tuubaa ku bëri tawhid na léegi damaa bàyyi di pexal sama bopp wala may dooleel sama bopp may kattanal sama bopp bu may pexe yàlla may jël parole bu may bu ma bëggee am kattan yàlla kattanug yàlla moom lay jëlee jëlee parole moom lépp yàlla la ko bàyyee yàlla mooy sama borom yonent bi mooy sama roy teef yàlla lay jaamu bu may roy yonent bi lay roy ndax yonent bi yàlla def na ci moom ay jukko yoo xam ne nekkul ci keneen kon moom lay roy xaddaaniya gindi na ma alxakimu yàlla muy aji xereñ ji bil ax daa i ca noon ya wa asaala te dëñal na an nii mu ma daa i sama jàngoro bi moo ca noon ya yàlla muy aji xereñ ji fexe ba gindi ma ba ma nekkee ca noon ya ta mënoon naa réer mënoon naa weddi yàlla loolu yëpp mënoon na ma caa waaye gis nga yàlla mu fexe na ba gindil ma boppam moom yàlla nga xam ne réeru ma seen biir waaye fexe na ba jàngoro mu dindi ko ci man ndax mënoon naa bokkaale yàlla ni ko noonu di defee nasaraan si mënoon naa weddi yàlla ni ko ñeneen defee waaw waaye ba ma nekkee fa ñoom ca métti ya ci seen suuf sa yàlla fexe na ba dañal ci man sama jàngoro mosuma mu daaxananteeg ñoom sax di am lu may bëgg ci ñoom déedéet. kon wëbbi humoo asaala an ni daa yi wa asaala dañal na an nii mu wulis ma daa yi sama jàngoro bii humoo ci ñoom noonu ya kafa fekk na bi kaw nii ci ak nekkam alxafiisa di aji wëttu ji al aydiya seeni loxo ya wa fakka xob bi na an nii mu wulis ma neex ma est-ce que sama borom xaydiya sama jéng nee yàlla nekk gim nekk tudd xafis di aji wëttu ji fexe na ba seen loxo yi la ma la la ma gaxal yeewal ma seen loxo yi ba kenn mënatu ci man dara seen loxo yi dañoo mujj sel def lu ñuy wax laggee ci man mënut ci man dara ndax ñaareel nit bu la namee lor ci loxo la lay loree mu ne yàlla daf maa fegal téyel ma seen loxo loxo yi gaxal ma ko ba seen loxo yi sel ci man lagge ci man mënut ci man dara waaye mboolem jéng yi ma tënkoon ci samay tànk samay loxo yoo xam ne day tax du ma mën a jaamu sama borom loolu yëpp yàlla dajal na ma ko est ce que yàlla muy def loolu kenn du suñ wa fakka xob bi na xan nii mu walis ma xayi sama jéng bi ma tënkoon neex ma amul morom rabbi son borom mi nga xam ne moo daj jéng googu kon gis nga sëñ Tuubaa léppam rek da koy delloo ci borom subhaanahu wa taala di wane ne fu mu toll rek moom du tàggoog sant yàlla borom subhaanahu wa taala yesara dana yombalal lii ñeel ma fil baxri ci géej gi wax di yàlla mi nga xam ne mooy kenn wax da dong sax ban mboolem lu jafe wa an jasata dana teewalal lii ñeel ma fii fii ci biir géej wax da dëxal bi ma digoon yàlla dana ma yombalal ci biir géej gi moom mi nga xam ne kenn dong la amul kenn ku ko ñaaral mboolem lu jafe daf ma ko yombalal ci biir géej gi waaye lim ma dig ci biir géej gi ba tey teewal na dëxal bi dana ko teewal loolu nag li cëpp li muy wax mooy wirdatu almanxoos wirdatu almanxoos mooy wax ndax booba ci géej gi lañ ko ko digoon waaye gànnaar ci la ci la ko jotee nga xam ne waxoon na ko mel ni si ñaam satu jaxate nu ko damaa bëgg nga ñaanal ma ndax dafa lu ma yàlla dig ba sëñ Amsatu sax mu ngi xaw a jaaxle waaw lan lay war a doon ku yem ni sëñ buy wax ne ñaanal ma yàlla ndeke boobu yàlla da ko dig wirdutu almanqoos mooy wirdu yi nga xam ne mboolem secret wirdu yëpp mi ngi ci biir yëpp bàyyi ko ci yàlla joow jaar ci yonent bi jaarul ci keneen amul ci benn nit ku baax koo xam ne mos na ko yor ci yàlla rek la bàyyi ko daal di ñëw ci sëñ Tuubaa di wirdu woo xam ne wirdu wu keemaan la waaye wirdu woo xam ne tabaaraka la wirdu la woo xam ne ku koy wirdu ku ne doo ñee kenn doo ñee kenn dañ lay ñee waaye doo ñee kenn te ñàkk dara kooku mooy yudatal ma xos kon loolu ci géej gi lañ ko ko digoon waaye ci gànnaar lañ ko ko jox bi mu demee ba am nasru muy fattu muy ndimbal ak ngañaay ci la ko yàlla jox wirdu wi moo tax kon mu ne yesara dana yombalal lii ñeel ma fil baxri ci géej gi wax di yàlla muy kenn wax da dong sax ban mboolem lu jafe lépp luy jafe ci biir géej yàlla daf ma ko yombalal wa an jesa gis nga waxut teewal na ko de daana ko kon boobu jotagut ci ndax ci gànnaar la ci jotee moo tax ma ne wa an jesa dana teewalal lii ñeel ma fii ci biir géej gi lan mu ne wax da dëxal bi yàlla lim ma dig war ma ko jox maa ngi ci biir géej gi ñi ngi ko signé ñaar mu ne dana ma ko jox maa ngi ko yaakaar ci waxtu ne sëñ Tuubaa ak bëgg yóddu yi ak bëgg yóddutu almanqos mu ne yàlla nag dana ko teewal te fu ne yàlla jox na ko kon kon yàlla jox na ko loolu mu doon wax ajran kabiran wa sawaban wa jasa wal wax waxdu lii fii ramadana jasa gis nga kon foofu ba tey moom lay wax kama taqbala wa waxdan an jasa gis nga ba tey ci xasid man sa ne nii moom lay wax bëri na foo dem muy wax wax dan najasa mooy wirdatu almaxos moom rek la ci jublu mooy wirdu wa nga xam ne moom la waxoon ne ukkutub liman aqasa wirdin yaa karim mustaxmilan bihi sawaban yaa karim yàlla kuy jël wirdu wi te am ci ndigal di ko jëfandikoo bindal ko yool woo xam ne du dog mukk moo tax wirdu wi boo koy def maanaam sa yool duñ ko dog maanaam waxtu wu booy nelaw sax dañ la koy bindal boo ko wirdu te nelaw sax dañ la koy bindal sarta yi nañ ko waxee boo koy defee booy nelaw sax dañ la koy bindal yool nga xam ne fu ne sawaabon laa yërim bopp mi ngi jublu booy nelaw booy dox te doo booy añ booy naan na nga xam ne te wirdoo wirdutu almanqu sax ñu ngi lay bindal yoon ba kon waaw ana ki nga xamee ne moom dafa dappatoo rek sax ci wirdu wa kooku kéemaan la kon kenn xamul yoon bi muy toll yàlla na ko yàlla fayal baax